maa ngi nuyu ñëpp di kontaan di rafetlu toogaay bi di nuyu kilifa yi fi teew tey wax dëgg yàlla sama xol sedd ndax woote ñu wuy si la yombul comme su ngeen bàyyee seen yitte yëpp ñëw tey toog fii ñëw encouragé jigéen jàmbaar yi dama koy rafetlu di ci kontaan wax dëgg yàlla ñun mënuñu leen a fay ndax jigéen fu mu yegg rek am na góor bu nekk ci wetam di ko puus te gis naa ni yéen a ngi sunu ginnaaw di ñu puus mënuma bañ a lim nag dañuy wax kuy lim da ngay juum wala doo matal mais mënuma bañ a lim ndax am na kilifa yoo xamante ne yu mag yu ma gunge yu ma taxawal yu ma jàppale yu ma dooleel dama ciy njëkkee monsieur si monsieur Sy moom mooy fondateur Avenir Events wax dëgg yàlla tey su ma ñëwee ànd ak moom di liggéeyandoog moom mu teg ma ci poste directrice général dama ko ci sant di ko ci gërëm bu baax a baax waaw di rafetlu toogaay bi di remercier sama président d'honneur monsieur Baye Lay Fall Baye Lay Fall dama lay remercier di la ñaanal gis na ni nga taxawee ci projet bi début bi ba tey nga ànd ak ñun di ñu gunge jël tele bi mettre ko à notre disposition équipe bi yëpp nekk ak ñun pendant tout ce temps fii ci euh, place Mamadou Dia jabi accompagner femmes yi di leen defal ay publie reportage di wane seen compétence tamit ñoom aussi ñu gën a mën a am visibilité ci seen liggéey maa ngi la ci remercier di la ñaanal Fall li nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko suñu borom defal. président Ablaye Dièye mu ngi woon ci yoon bi di ñëw am empêchement bu gaaw moo tax egsiwul kooku dama koy ñaanal ndax suñu diggante président Ablaye Dièye du tey dafa yàgg ndax premier meeting si euh, Siggi jot na ñun ñii ñoo ko couvrir woon fii ci même place bi dañ ko def rek quelques jours après Covid bi dugg. donc président Ablaye Dièye suñu digganteek moom du tey démb la mu am nag yëg-yëg ci ci ñun lu nu xewle mu taxaw ci daaw mu nekkoon suñu président d'honneur ren aussi pareil comme kooku tamit moom mu ngi ci ginnaaw jigéen jàmbaar ndax euh, moom ak euh, Baye Laye ñoo yam lu nu am Cees leen ko gënal lu nu am jigéen a leen ko gënal développement moo leen ko gënal gis na ni ngeen ñu jàppale gis nañ seen taxawaay ñun nag dañu nekk ay femmes yoo xamante ni si ñun jigéen jàmbaar lañ tuddee suñu bopp ndax ñun duñu dem di ñaanaatu du ñu dem di saraxu kenn ñun danoo gëm suñu bopp di teel a xëy liggéey daan suñu doole guddee wàcc lañ xam ndax fii ñu fi toog ñii ñëpp jël fi stand exposé duñu ay débutante ñoom ñëpp ay chef d'entreprise lañ ñoom ñëpp ñu fi toog fii ay chef d'entreprise lañ donc ñooñu li ñu soxla defe naa ni mooy accompagnement ak ku ànd ak ñoom gunge leen ba ñoom aussi kenn ku ci nekk sa projet futur li nga ci bëgg nga am ko ci. loolu moom dama koy préciser bu baax a baax a baax ndax ñoom ñëpp ay kilifa lañ te ñaari loxo mooy takk euh, sër mooy takk aussi tubéy donc te ñun dëkk bi defe naa ne ñun jigéen ñi ñun ñoo ko yow comme ku ñu jàppalee defe naa ne dëkk bi dina avancé ñun suñu avancé rek dëkk bi dina avancé te gis na ni yéen a ngi ci. mënuma bañ a remercier président chambre de métier Amadou Mokhtar Seye kooku kenn la ci man kooku sama càmmiñ la kooku sama lépp la lu mu xewlee chambre de métier avenir events doy na ko ci man lay woo teg lépp sama loxoom événement bi mu def ko événement am ànd ceeg man dox ci lépp kooku mënuma koo bañ a gërëm dama koy ñaanal yàlla li mu bëgg moo ko xam suñu borom defal ko ko Mbaye Gueye EMG ñëwul mais il s'est fait représenter par Ndiol moom aussi ñuy lu teewaayam di di ko yóbbante gërëm ak nuyoo ci mbay di ko wax ni gis nañ taxawaayam ñoom ñii ñëpp ay parrain fixe la ndax année bu nekk ñoom ñooy nekk suñuy parrain wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet ñoo ñooñu mënuma leen a bañ a remercier remercier suñu maire maître Ousmane Ousmane Diagne moom aussi wax dëgg yàlla gis nañ présence bi rafetlu nan tamit ñëw def visite def tour xool femmes yi maire Dakar Thiaroye-sur-Mer gis nañ taxawaayam moom aussi maa ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax mënuma bañ a tamit remercier sunu marraine fixe yi nga xamante ne aussi chaque année ñoom dañuy renouveler sunu seen confiance ak Avenir Events muy euh, madame Oumou Silla conseillère départementale moom aussi kenn la ci man c'est une sœur bii affaire bi commencé ba tey mu ci ànd ak man toogul taxawul sama grande sœur maam seen moom ñëpp xam na sama digganteek moom moom aussi aw ma fayam dama koy remercier di ko ñaanal yàlla di remercier Baye Serigne di remercier sama càmmiñ Papi Dieye Papi Dieye moom gis nañ taxawaay bi bu baax a baax a baax d'ailleurs dama koy wax fii jigéen ñëpp dégg ko que ni papi nee na après dîner bi daf ñuy may laa laadum bu baax ñu def raxas ñu def raxas tase fenn toog waxtaan kafree wax dëgg yàlla ma ko ciy remercier bu baax euh, moom aussi sunu càmmiñ boobu papi wax dëgg yàlla euh, li ñuy wax naan mënuma lim ñëpp dinaa juum wala duma matal sama yaay Adja Fama Seck lii yëpp moom la fu ma egg tey moom la sama mag laa sayel ya nday ab sëgëy kooku moom kooku moom su may wax ci moom defe naa damay jooy ndax mooy man mooy man maay moom boobu ba tey taxawul nelawul Euh, guddi ak bëccëg yëpp ñu ngi ci affaire bi ñoom ñëpp sama famille bépp sama rakk awa ñoom ñëpp aw ma seen fay sama parrain yi Ousmane euh, kii maître Ousmane Diop président mouvement awa il s'est fait représenter moom aussi par son frère ñëw na wax dëgg yàlla assisté nekku fi mais xelam ak xalaatam yëpp mu ngi fi mënuma ko bañ a remercier Basirou Seye nag moom kooku dama koy ñaanal ndax lii yëpp moom la moom laa fi am mooy sama càmmiñ mooy sama lépp lu may def moom la fu may teg sama tànk moom la kook su ma waxee ba tënk te remercier wu ko gërëmuma ko du baax mais moom xam na man xam naa yàlla na yàlla yàggal ànd bi saxal ko moom c'est mon frère sama càmmiñ la sama lépp la maa ngi aussi remercier El Hadj Mboup El Hadj Mboup Africa Tourisme Solution moom depuis remise dons kit denrées alimentaires yi ci ramadan bi mu nga fa woon ba tey tamit nekk suñu ginnaaw jàppale ñu ak fondation boobu di Women 360 ñoom aussi daaw accompagner nañu ci don de kit denrées alimentaires yi ndax aussi liggéey dëgg la mais dañ ciy bëgg parfois di ci dugal social jàppalante suñu biir te xam ni euh, lépp ñun la suñu biir la rek ñun la te ku defal nit rek séntu ci te dara taxul nga koy def ku dul yàlla suñu borom yàlla mën na laa fayal boppam bàyyi sëriñ Sam si gis nañ tamit présence am maa ngi remercier ñëpp di sant ñëpp bëgguma guddal parce que dañu bëgg a remettre attestation yi moo tax kontaan naa vraiment sama xol sedd